jër ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Senego TV senego point com ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun euh, tey nag Senego mi ngi fii ci Madiyana ci benn responsable APR boo xam ni mi ngi wuyoo ci turu baay Alla ñu ne ma waxtaan ak moom tuuti ci actualité ci réew mi bu ko defee dina koy bàyyi mu nuyoo ñu sóobee moom ci waxtaan yi Baye Alla ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay di la wax dalal ak jàmm di nuyu waa Senego yëpp di nuyu ñi leen di seetaan ñëpp. Euh, di la wax ni ñëw nga ci man pour laaj ma lu xew nañ ko seq ci jàmm euh, li ma ci xam te nga xam ni lu ma mën a wax la dinaa ko wax incha allah. li ma koy doore mooy wax euh, maanaam audience bi nga xam ni dinañ ko doon amal ca palais njiitu réew mi woowal leen fa yéen ñi nga xam yéen responsable yi nekk ci département bu Mbacké bokkoon nga ci ci ci ñu fa teewoon wala. waaw man yàlla def na bokkoon naa ci ñi ci teew teewaloon fa gox bi ma dëkk muy Madiana dem naa ci jàmm dikk ci jàmm am na. mais dañoo dégg ne coow dafa am bi ngeen parce que liste yi ak ngeen ko doxale woon ñu doon bind liste bi est àndoon nga sax ci liste bi ak ñu ko bind ñi nga xam ne ñoo doon dirigé liste bi di Cheikh Abdou Bali est ce àndoon nga ci moom mu bind liste bi parce que ñu bari ci responsable dañoo gis ni moom warul woon mën a bind liste yi parce que fii leen fekk waaw xam nga loolu moom mooy dama koy wax di waxaat affaire ci moom ci boppam xëy na ko jiite ñooy def léeg-léeg dañuy dañuy sant ko mel ni mbir mu mu nangul la mu gàntul la ko nga wàññi ko nag tamit amaat beneen soxla wàññi ko ni ko yaa koy jiite kaar naa lu bari mooy euh, dañuy war wërloo daal te war na nag jot na ñu xool li nga xam ne war nañ koo def ñu def ko wut njiit lu nga xam ne lu fixe la ñu tegal ñu ko kenn ku ne xam fan ngay teg sa tànk war na kaa mën a jiite ndax xëy na kilifa may na ko ko am na ci wàllu ko suñ kilifa la ci mais bu dee ci wàllu politique xëy na du ci suñ kilifa waaye comme tamit ñun liweesu dañ noo am lu ñu doon defloo nun nu àndoon ci nangu koo def ñun waa parti bi ñoom ñu àndoon ci nangu ñoon ànd ci ci loolu ban def ko ba noppi xëy na kon warul ta wàññi ko rek ñu ñëw di ko def laata man nag woowu ma ñeneen a ma woon ni ma mat président dañ noo may audience ñi ngi bind soon bu ne danañ fa bind trois personnes ci lañ ma wooyee bindal ma trois personnes demuma dikkuma parce que tamit man nit ki li ma wax rek laa mën a gëm ci loolu lañ ma wax loolu laa gëm ci loolu laa deme dem naa ba ci biir nag mayaat nañ ma man ma dugal trois personnes yi après man ñu dugal ma man ci sa bopp boobu daal loolu laa ci xam loolu laa ci dégg. léegi ba ngeen eggee ca biir dafa am ay ay kàddu yoo xam dégg nañ ko fa parce que ma dégg naa sax ñu ni ay yuuxoo amoon na fa bu ñuy jëlee kàddu Baye Alla jëlee kàddu am ñoo xam ne am ñoo Baye àlla ay ay nitam yuuxoo ko est da ba nga woon ci biir wala. xam nga Baye moom jëlul kàddu mais comme ñeneen responsable exemple waaw loolu tamit comme ko rek politique moom politique la rek loolu moo indi audience bi ñàkk jaar yoon parce que bi ñuy dem ci ci audience bi du caagee nu ñu waa APR rek lañ yóbbu kenn ku ne da ngaa ñi nga mën a yóbbu rek fexe ba yóbbu leen ci ñoom ñu doon bind ci liñ ñu yëgal ñun bañ jàpp loolu dañoo seet ñi nga xam ne rek bëgg nañ leen a yóbbu ñu yóbbu leen wax dëgg yàlla yóbbu wu ñuy APR parce que waa APR ñiy sonal APR di bind di perane di def li ñu war a def kenn yóbbuwu leen kon yaakaar naa bu ñu yóbboo ñeneen ñu leen di tàccul ak ak ak ak dañuy bëgg nax rek par président te loolu mën naa ñàkk nit ki soo ko yóbbul da nga ko yóbbul ku ko gëm parce que ñi yóbbu ñi ci ëpp gis nañ fii buñ masaa nekk ci ay élection wala ñuy def leen ñooy taxaw ñun ñu yaakaarloo ak ñoom kon ñooñu tey boo wàññi koo rek ni damaa bëgg ma yóbbu leen ci président a yóbbu ñi nangul président ba noppi man ci li ma jàpp te nangul ko te di ko liggéeyal te xam ni buñ ko liggéeyalee te dëggal danañ am ndam mais waroo ni gëmuñu ko bëgguñu ko xëy na yaakaar ne bu ñu demee ci présidence danañ am dara rek loolu moo leen yóbbu nga jàpp ni da nga xam ne demoon nañ fa ci responsable ñu ci bari foofu du woon seen place xam nga responsable yi mën nañoo dem mais ñi yóbbu am na ci ñooñ du seen place bala ngaa yóbbu da nga war a yóbbu nit ñu nga xam ne ñii gëm nañ président yaa ngi gis ñi ngi ci terrain bi di liggéeyal président di ko ñaqal pour bëgg mu gagné mais boo yóbboo ñeneen ñu nga xam ne war na ma ne ñii ñaqaluñ président bàyyi fi ñu ñaqal président yaakaar naa jaxasoo rek la war a indi comme ni la waaw yow nga nekk responsable ay responsable doon jël kàddu ci kanamu njiitu réew mi lan moo tax boole ñu boolewul na ci liste bi ñu war a jël kàddu xam nga man dama bëgg a euh, dox du ci yar ak teggin yar ak teggin mooy xam nga fu mel ni président doo egg taxaw rek xëy na joxaguñ la kàddu gi nga taxaw di ca xëccu moo tax xëy na bu ñuy def een programme duñ ma ca boole su dul loole li président laaj ñoom gis naa ni kenn tontuwu ci mhm. te jartu nañ ni man su jëloon kàddu dinaa ko ci tontu muy lu leer man su ma ko jëloon dinaa ci tontu ni ko li tax ngay ñàkk Tuuba am moom xam moom président war na koo xam am na lu mu ci xam mais am na lu mu ci mais ña fa doon wax it tontu wuñ ko ci loolu loolu la laaj nu ñuy def ba mën a gañe mais waxuñu ko ci kenn ku ne boo jëlee da ngay tàgg président wax ne ko defal nga mën nangam defal nga mën nangam mais ñi koy sonal ñu ngi nii yaakaar naa dañoo am lu dëkk bi soxla nu war koy def di ko wax di toppatoo nit ñi nga xam ni bëgg nañ président te xëy na seenu jekk mate ko nu fexe ba jekk googu ñu man koo am mais loolu gisuma ko fa dégguma ko fa. mais est-ce kon nekkul ne audience bi maanaam mbir la moo xam ni après pëcc xoolee indi rek du am benn résultat. waa rece bu fekkee da ngeen dañ leen ñu ci réew mi def leen woo pour xalaat pour xool na di xuloo a a bañ a am maanaam a gañee askan wi fi nekk a néew doole dafa am nu ñu leen war di defal di leen ko dimbali dañoo génn ci koor ay président moom parti am parti bu mag la am na lu mu war a mën a dimbalee nit ñi ci koor gi loolu la waroon a jëkk a def wala mu laaj ñu suñu xalaat ñu def loolu fexe ba nit ñi ñi ñi doon defal prénance ak yooyu mu dimbali leen en tout lim ñu jox bu fekkee jox nañu ko ñu jox leen ko ñu def leen ko su koos koos leen yaakaar naa moo gënoon yóbbu ñu ca pale ba ñu fay xuloo ko xeex xuloo bu ko xeex mooy mooy comme ni nga wax rek bu kii jëlee kàddu ay nit a nga koy tàcc diw li mu wax noonu la am ñu taxaw fee ne ko li mu du noonu yaakaar naa président ci boppam dafa mujj xaw a maar wax ji li tax eggut aman ah, àgguma jël kaddu maa ngi ñu bare jotuñoo jël kaddu président ba mooy xool ñuy joxe kaddu ba yàgg mu ni moom dafa yaakamti nañ ko jox kaddu gi mu wax dafa wax rek yëf yi terminé. léegi nag est-ce loolu nag jurut nag fi mu toll nii yéen responsable yi ngeen taxaw comme yéen ñëpp da ngeen wax ne njiitu réew mi ngeen di jàppale ngeen def benn bloc ngir jàppale ko ca bàyyi wax jeeg yooyu parce que gis nañ ni yéen comme dem ngeen ba pale ba njiitu réew mi woo leen ngeen dem amul benn résultat boo xam ne jëlee ngeen ko fa ci liñ jàpp parce que amul résultat parce que dem ngeen fa wax ngeen xuloo xeex xuloo ngeen fa seen biir njiitu réew jël na kàddu wax na la wax lam doon laaj mooy nan lañ def ba gagné département bi ko koo ci gis koo xam ne wax na loo xam ne yanu na maanaa xam nga kooku moom bëgguma tudd kenn muy mer waaye ña fa wax ñëpp ñi ci ëpp ku wax sa bopp nga waxal moo ci ëpp ndax nit moom mënu leen a jógee ànd ànde Tuubaa ba ñëw mais booy présenté sax eh, ñi ñëw ci kii bi war nga wane par exemple diw ak diw kat ñu fi ay responsable lañ wala nga ni son sàngam kat ñëw nañ euh, parce que son yi bëriwut on son yaakaar naa lim son yi ñi fi teew ñi teewal son yi lu lu yomb xëy na gis naa ne am na ñooñu bu ñu jëlee kàddu nuyoo nañ seen i bokk waa ci loolu lañ yem xëy na bokk yooyu nag dañuy politique wala politique uñ mais gis naa daal ñu léem leen ñoom nuyoo la leen mais ñun ñu ngi xëy dañuy politique moom wóor na ni ñu ngi mënal président dara kenn waxul président ne ko ñëw nañ président it bi muy lim ñu muy nuyu yaakaar naa boole wuñ ca yaakaar naa xëy na dañ ko bindal lu lis wala bu ne dañ ko lis kon loolu tamit mm, affaire u xeebaate yooyu ñu fa def daal gënul ci politique amuma abati toujours yanu ay nit rek yóbbu leen ndakaaru ba fii surtout jigéen man bugguma koy def góor ñi doy na ku ci am wayefteeg mën a dem bëgg naa nga dem mais bëri wuma man lu may yeb aw jigéen nag ànd ak ñoom dem voyage Ndakaaru muy soxna jàmbur te du ma ko def sañ soxla bëriwut lu ma koy def politique daal li ma bëgg a gëm mooy kenn ku ci ne ña nga am say militant fexeel bañ gëm la fexeel bay li ngay am nay egg ci ñoom yaakaar naa buñ maase woon ci loolu perte dëkk bi dootuñu yomb dégg naa sax kenn ci responsable yi mu ni moom dina créer ay nit yoo xam ni ci yenn yenn yenn kii local yi ñi nga xam ne ñoo ko doon xeex wala yu ni mel nga xam ne dëkkooruñ ci moom pour mu ñëwoon sax pale dina créer foofu ay nit yoo xam ne da leen di contour yow da ngay da ngay da ngay wala da ngay bàyyi noonu rek affaire yi jàll. xam nga man loolu ñu bari yabu ñu ma yabuk xool ma ni ma kaay ñu def nangam te bu fekkente ni dara xew doo ñëw ci man di wax ak man man ki may waxal dafa dama bëgg toujours bu may wax ak moom fekk daanaa wax ak moom waaye nit ku toog bu am meram rek ñëw ni ma kaay ñu ànd ci sama xeex man du ma doxee noonu en tout cas daal dinaa fexe ba samay militant respecté ma tey lu ñu xam ne man nekkuma ca duñ ca nekk foofu nag laay nekk waaye nit ku am meram rek ñëw gàddu ko ñëw ni ma kaay merle ma ko man du ma du ma doxee noonu. léegi élection yi ñëw bu njiitu réew mi tegee seex Bally Cheikh Abdou Bally ngir mu jiite département bi ci élection yi ban taxawaay nga ci am da ngay ñëw boot ci ginnaam wala. ñun keneen ku nekk affaire keneen ku nekk APR ku ne man comme la ma waxoon rek bañ tegee Matar Diop dama ne woon man dinaa ko jàppale li may wax noonu président laay déglu kum mën a teg te woo ma ni ma àndal ak moom jàppale ko kaay liggéey la ko yaakaar naa ne kum mën a teg rek dana ñu woo bëgg nu wax ni nan ko jàppale. Euh, loolu président la moom war a am xalaatu politique am parce que politique am politique la euh, waroo teg sa ndaa rek ay nit ñëw dóor ciw xeer mu toj mm-hmm. ñi ci dóor xeer war ngaa xool ba xam. naka ngay def ak ñoom waaye waruñoo waroo def sa li ngay def ba pare ñu lànk loolu ba pare nga ñëw wàññiku ñëw dafa mel ni ñi contrôle rek ci ni ma déggeegun ñooñu lañ bëgg taxaw mel ni ñoom lañ bëgg a jiital man xëy na dinaa ci ànd boobaa mais nag du ma ci ànd tamit 100 pour cent mën naa ci ànd ba noppi nag saa nit duñ ci ànd kon li ko daal mooy mu boole nu waxtaan nu waxtaanee ko ba mu nekk ci tege ci aw yoon hmm, parti bi ñun ñoo ko moom ñoo ko séq xëy na kuñ teg rek danañ la jàppale waaye nag kenn ku ci ne dafa war a am yaru parti ki ki ki la gàntul moom war nga bala nga koo defaat dara seetaat ko wala nga waxtaan ak bu baax. koppar yi man toujours li may wax rek seddoo yaa koppar coow rek lay indi boo gisee wajaas boo gisee muy xumb am pàccaxoo xëy na koppar yi ñu ciy rek la loolu nag man bu doon mën a laa wax comme wax naa la ko ci ci koor lañ génne. yaakaar naa koppar yooyu bu ko yëkkati woon muy 30 nanga million wala 40 def ko 40 ñu fexe leen ba askan wi jot ci ci koor gi nañ ci am suukóor nañ ci def la neen yaakaar naa moo gën a yanu maana moo ëppee ci ay mais yaakaar naa li ci mer bari na parce que ñi ñi nekk APR dëgg-dëgg te ñoo dem foog foog ñu am mer kon mbir mee na mu ne dañ ko war di waxtaane gis président baax na mais ay quelques personnes rek responsable war nañoo mën a fexe ba déggoo dem gis ko ci ci ci ci ci ci lu toll noonu buñ seetoon responsable yu jaadu rek ñu dem fexee gisee président mu jox leen somme bu am solo ñu ñëw def ko sekk euh, sukkur score souvent ñu jox ko jigéen ñi ñu def ko ay fondé de quinze ñu mën cee liggéey comme man ni may def yaakaar naa li ëpp ci li ñu doon campagne li ci ëpp ci ñi ma ci sos ci samay mbootaay ñi ci ëpp fi ne nii ñi ngi ci 3 millions 4 millions man ni ma gis politique man noonu la waaye du caagéen dañ lay jox xaalis nga tasaare ko fa nga nekk passé leen ko boo ko passé ñi demoon na koy passé ñi nga bàyyi fii am am am am naxar euh, politique nag man li yaakaar naa fexe boole moo gën daal di taxale waaw xam nga yëngu-yëngu yi dëgg la Gallo ñëw na ñëw na ak doole ñëw na ak force mais teewul xëy na mën na ministre su jotee dañ ko ko war a def mais galo dafa am lu yor ba pare yaakaar naa pour ñu doon dem ci élection yi ànd ensemble mën a liggéey ñi jot yor ndomb dañ leen war a bàyyi ñu ñu yor seen ndomba ñi amagu ndomba te nga xam ne mën nañoo liggéey te liggéeyal paysan ñoom it ñu fexe leen a yaatal dugal leen fu nga xëy dinañ am ndomba bu ko yaatu kenn ku ci ne man cee gis sa bopp ñu xam naka la ñuy def ba mën a gañe xam nga li ñuy def nii ci politique dafa yomb ndax kenn ku ci ne danga am foo sa jaar-jaar kenn ku ci ne am nga presse am kenn ku ci ne am nga fooy waxee ku ci génn te bëgg APR rek boo toppee rajo sociaux yi da nga xam ne kii mi ngi ci APR wala nekku ci APR mm-hmm. waaye ànd ñu nga xam ne nag dañoo fu ñuy liggéey APR man loolu ma ko def dama lay wax ne la tam ñi nga xam ne dañoo yor ndomba war a liggéeyal président liggéeyaluñu président gisoo benn activité ñu def ko ñoo ñit suñu ma woowaalee ci seen bokk seen mer man du ma ci ànd su may ànd ci sama mer moom bu ma koy def dama bëgg ànd ak ñi nga xam ne àndoon naa ñu bëggoon président àndoon def sama bless ñooñu buñ ma woo ci mer danaa mën a mer ci def dara bu la bay saa joxee ndomba doo ko liggéeyal boo toogee ba mu neexul rek nga ne kaay bàyyi àll kaay ñu ànd mer du ma def loolu damay ànd ak tey ànd xam ni damaa nekk ci parti bi damaa bëgg parti bi bëgg naa liggéeyal parti bi su fekkee parti bi liggéey loonu ma lii nu jëm bu ma liggéey loo ma xam ne nag euh, bëgg naa liggéey mais kenn du liggéey nag te liggéey loowuñu la fa ngay taxaw yéen xeex bi eh, eh, ak élection législative yi ñu jëm est ci département yi fépp foo xam ni am na ki fi am doole keneen ki jàppale ko te ñoom ñaar bu ñu defee benn bloc yeewi rek wax na ne am na doole léegi nga gis wàllu ñër wa ñëw ci département bu fekkee ñu maa dañoo ànd ngir xeex leen est euh, jàppoo ni ñun tamit dinañ dem jël ci wàllu lu bari lu nga xam ne mooy nekk seen yaakaar def ko ci suñu bés xeex la rek parce que wàllu tamit bu yaakaar ne ñoom dañoo ànd ñañ tabit ñañ tëbut bañ nañ te nee ñu duñ ci ànd kon dama la wax ne la coow li fépp la te ñun ñoo ëpp doole kon yaakaar naa bu fekkente ne tibb nañ ci wàll ci ci ci ci ci ñoom ànd ñun tamit dañuy fexe ba dem tibb ci ñoom. Mm-hmm. ñu ci ëpp doole fexe leen a teg ñun ci suñu liste ñun itam. Uh, man bàyyi la lu mu comme ni ma la wax rek uh, am naa respect respect bopp ci sama bopp uh, li ci ëpp du opposant kenn ku mas a ñëw ci man taxaw di ma wax waxu kaa ñu ànd dem ci sama parti bariwul amul mën naa laa wax ne la amul. xam nga wax ji li muy bari bari yeewi askan yi xam nañ kan mooy Balla Balla xamuñu ko ci caaxaan yooyu day nekk ci lii tey bu subaa mu dem nekk ci lii man damay nekk ci menn mbir mu ne dama koy gëm su ma ko gëmatul rek ma ma xam ni gëmuma ko ma bàyyi xëy na yeewi askan mën nañuy wax nag ci ci ci ci àll bi nii rek waaye ku ñëw teewagoon fii ma xam ne yeewu askan wi la ñëwagul ci man di ma wax yaakaar naa sañuñu loolu parce que xam nañ ni fi ma nekk fi laa nekk fas naa fi laay demee élection incha allah lëkkoo bu nga xam ne coow la comme coow yëpp rek gis nga ko Cheikh Mbacke mi ji jiite woon parlement bi gis nga ko nee na du ci ànd du ci dem yaakaar naa li ñu def noonu xaw xaw a jaaxle la nekk tumuranke wuñu ñu àndoon ak ñoom comme li dal rek tumuranke wuñu woon wuñu ñu ànd ak ñoom ba ñuy dem di jëli ñu nga xam ni bokkuñu woon ci PDS di leen jiital ci seenub lis ñaar ñi ma dégg ñu ni ñoom la ñuy jiital yaakaar naa jaaxle lañ def mais fooguma ni noonu gënee na ni yaakaaruma ko nag mbirum jàmbur nag moom man bëgguma koy publicité waaye eh, li li ma dégg ñu ni moom lañ def daal man rafetlu ma ko daal. responsable yi man li ma leen di dénk di ko dénk sama bopp mooy nañuy xoolante rek eh, bët bi gën ci nit ak moroomam ak nit ak taalibe eh, bañ xool nit ki toujours de trop diw de mën na nangam. boo solee mbubu baax sax ñu di la xool ne yow sol nga mbubu lu tax nga di ko sol nit ki fii dëkkub Sëriñ Tuubaa la ku fi nekk rek da ngaa war a am teraanga ju wér teraanga ji nag mu da nga ciy boole nag euh, fexe ba respecté nit ñi nit ñi tamit respecté la ngay ñaanal ñëpp yàlla defal leen xéwal ñu am jàmm euh, jàmm ji bu ñëwee ñu bokk ko mooy fexe rek ba li ñu li ñu nekk sumb ko bëgg koo bokk ñu fexe ba man ci am dam mais lu nu def nii nekk tamit di xiiroo ak a ŋaayoo ba li ñuy wuti buñ ko amut itam yaakaar naa ci ñun rek la ñuy xool euh, dem élection ba noppi nag boo xëyee ub sam néeg di nelaw yaakaar naa loolu toujours moom rafetul waaw sant di leen gërëm di eh, xalaat ni li ngeen def nii lu may rafetlu la saa bu ngeen déggee lu nga xam ni xalaat la yu ñu war a wax ci dëkk bi ngeen ñëw tàllal ma seen micro ma wax ci lii sama xalaat waaw di yi ñëpp nag képp ku nekk xam ne daal bennoo nga ñu fexee bennoo ba def leen bëgg a def